Hmm, hmm. mbokk jullit yu sang bi nee na mbokk jullit yu tedd yi. ñu ngi leen di nuyu di leen ziar. ñu ngi leen di nuyu di leen ziar. di ñaan ci yàlla suñu jataay bi. di ñaan ci yàlla suñu jataay bi. yàlla boole ci jataay yàlla naka yàlla boole ci jataay yamu nangu. ñi tax ñu daje fi. ñi tax ñu daje fi. di leen ñaanal. yal na yàlla nangu ñaan gi. yal na yàlla nangu ñaan gi. ambaale ñu ci ñun ñëpp. ambaale ñu ci ñun ñëpp. di ñaanal Baye Abdoulaye. di ñaanal Baye Abdoulaye. yal yàlla na fi yàgg am wér. yàlla defal ko ahlu bayti. yàlla bi yëpp. ak mboolem kilifa diine yi. ak mboolem kilifa yi yi. ñu ngi nuyu suñu imaam. ñu ngi nuyu suñu imaam. di ko gërëm di ko sant. di ko gërëm di ko sant. mu ëmb imaam yëpp. mu ëmb imaam yëpp. imaam Libaas Lo. imaam Libaas Lo. imaam Ngañ Demba imaam Ngañ Demba. bu Tëngéej. imaam Assane bu Tëngéej. leen di ziyaar ñu leen di ziyaar. di leen masawu it. di coono yu yi ngeen coono yi ngeen toggoo. yal na ko yàlla woyofal yal yàlla na guy. sunu xol sedd na guy. ndax ñoom wéttal lañu. ndax ñoom wéttal lañu. ci diine ji ci diine ji. mission la dox mission la ñuy xam nañ seen mission. te xam nañu seen mission. ca. nekk ca. ci anam ba mu gën a rafet. ca anam ba mu gën a rafet. kon ci turu sëriñ Ablaye. kon ci sëriñ Ablaye. yàlla na leen yàlla fay. yàlla na leen yàlla fay. di nuyu sunu boroomi dëkk. di nuyu sunu boroomi dëkk. di leen ziyaar. di leen ziyaar. di leen ñaanal yéen bi yàlla na woyofal. di leen ñaanal yàlla seen yéen yàlla woyofal ko. di nuyu maam Amadou Samb. di nuyu maam Amadou Samb. mi yàlla dogal. mi yàlla dogal. mu yor meeru dëkk bi. mu yor meeru dëkk bi. di koy ñaanal. di ko ñaanal. liggéeyam yàlla na ko yàlla jàppale. liggéeyam yàlla na ko yàlla jàppale. yàlla yokk suturaam yàlla yokk suturaam. ak xéewalam di nuyu nag. di nuyu. ahlu mbayeen gépp ahlu mbayeen gépp mooy ahlu rek mooy ahlu laay ñooy ahlu laay rek ñooy di ko teg ci loxo Baye Ousseynou di ko teg ci loxo Baye Ousseynou sunu baay suñu xarit sunu Baye suñu xarit di ñaan mu yàgg fi di ñaan mu yàgg fi te am wér te wér yàlla defal ko njaboot gi yëpp yàlla defal ko njaboot gi yëpp Baye Ablaye Mbaye jërëjëf. Baye Ablaye Mbaye jërëjëf. ci taxawaay yi ci taxawaay yi. jërëjëf ci njaboot. jërëjëf ci njaboot bi. bu ñu ko tuddee. bu ñu ko tuddee. yóbbaale na njiin mbay. yóbbaale na njiin mbay. yóbbaale njaboot. yóbbaale na njaboot. libaas ñaane léegi. libaas ñaane léegi. kisunu way jur yi fi ne kisunu way jur yi fi ne ya magen bay ya magen bay ya mari ya mari ya ramadlay ya ramadlay mak ñoñu ñepp mak ñoñu ñepp yalla lañ fi yag yalla lañ fi yag tam wer tam wer yalla defal nga jabon yalla defal ko jabon gi yep ñaanalit ñaanalit khas khas libas am libas am ñaanal nañu ñepp ñaanal nañu ñepp waye mom dafa jara sepp waye mom dafa jara seppi ñaanal ko yàlla ñaanal ko yàlla yàlla na yiwam yàlla na yiwam sunu borom ful ko sunu borom ful ko mu dëkk ak Baye Laye mu dëkk ak Seydina Limaamu Laay amiin yaa rabbal amiin yaa rabbal ku baax dem nee na ku baax dem na ku amoon njariñ ku amoon njariñ référence référence yàlla na ko yàlla yërëm yàlla na ko yàlla yërëm wax ji nag farankulaayu na sang bi nee na wax ji nag farankulaayu na tey jii day tey jii day jaam bee bëgg a wax ak boroomam jaam bi mooy bëgg a wax ak boroomam jaam bi mooy wax ak boppam jaam bi mooy wax ak boppam di yedd boppam di yedd boppam ci kanamu sang ci kanamu sangam mu mel ni mu mel ni bu ñu ko doon utal tem. bu ñu ko doon utal tem. dañuy wax am kilifa. dañuy wax am kilifa. am kilifa am kilifa. bari na luñ koy wax. bari na luñ koy wax. ci làmmiñ waaye bu jëf jotee. waaye bu jëf jotee. mu manqué kon bu ma doon utal jataay bi. kon bu ma doon utal jataay bii. tem tem. thème bi mooy. thème bi mooy. am kilifa am kilifa. moo tax. moo tax. jaam bi jaam bi. bëgg wax ak boppam. bëgg ak boppam. ci kanamu sangam ci kanamu sangam. ma jàpp ni. ma jàpp ni. ñun ñëpp ay jaam ñëpp ay jaam lañu. sunu sang. sunu sang. mooy sunu borom mooy sunu borom. subhanahu wa yu baax yépp yu baax yëpp baas ba baas ba muy lakkalal muy lakkalal mooy mooy pour ñu noppaliku pour ñu noppaliku dal dal ngeen baal ma waxin ngeen baal ma waxin wi Cheikh Mbacke nite. Cheikh Mbacke nite. xam fi muy teg tànkam xam fi muy teg tànkam. xam digganteem ak xam digganteem ak nit ñi. yiw yëpp la yiw yëpp. laka lal laka lal. laka lal laka lal. mooy ñun ñëpp dañu war gëm. mooy ñun ñëpp dañu war gëm ni. macha allahu kaana. macha allahu kaana. wa maa lam yasha lam. wa lam yasha lam yakun. lu neex yàlla rek yam. lu neex yàlla rek lu neexul yàlla du am. lu neexul yàlla du am fokk ñu ñu xam loolu. fokk ñu xam loolu. laytaayoo ko. laytaayoo ko. ci suñuy xalaat ci suñuy xalaat. ak suñuy jëf ak suñuy jëf. ak suñuy wax ak suñuy wax. yiw yëpp yiw yëpp. base bi base bi. laytaay laytaay bi. mooy maarifatullah mooy maarifatullah. xam yàlla xam yàlla. ku yé ku ku réere yàlla. sa doxin ñaaw. sa doxin ñaaw. sa ñaaw. sa waxin ñaaw. sa jëfin ñaaw. sa jëfin ñaaw. xam yàlla. xam yàlla. mooy gëm ko. mooy gëm ko. boo ko gëmee. boo ko gëmee. nangu ay dogalam. nangu ay dogalam. ndax dafa fiir lool. ndax dafa fiir lool. lu mu dogal lu ne lu mu dogal lu ne. la nga cay xalaat la nga cay xalaat yow. moom peeg na moom peeg na loolu. loo ca wax loo ca wax. peeg na ko peeg na ko. te lu mu wax rek kay am te lu mu wax rek kay am. ndax innama amruhu ndax innama amruhu. iza arada iza arada shay'an. an yaqula lahu an yaqula lahu kun kun fa yakun. lu mu nam ma lu ne. lu mu nam ma lu ne. bu nee na am rek bu nee na am rek. loolaay am loolaay am. <coughs> alhamdulilah yi gëm yuur yàlla war na te gëm dogalam ya dem suñu weer na dafa jara settantal sang bi nee na loolu dafa jara settantal alhamdulilah yi gëm buur yàlla war na te gëm dogalam ndegam sunu diine wér na ndegam sunu diine wér na lu tax lu tax li yàlla dogal ci ab jaamam manul jaas dinay am faw ndem ateem ba daw naa loolu lu koy firndeel. lan moo koy firndeel. lu jiitu amuk. mindeef ci ay junni at. la yàlla dogal dogal yëti loolu wér naa. ba looloo tax li yàlla dogal ci ab jaam. du dañ ci pexem mindeef ndem yàlla bañ naa. lii ku ko xam. sang bi nee na lii ku ko xam dangay ngay féex da féex imaam imaam koo xam ni koo xam ni lii da ko xam lii da nga ko xam di ko dunde di ko dunde sa xol sa xol du xam du xam lu dul lu dul sant yàlla sant yàlla ci ay dogalam ci ay dogalam ak lu mën a xew te buñuy wax furwi ngëm te buñuy wax furwi ngëm samratul iman samratul iman ngëm ngëm li muy jur li muy jur ci ay xewal li rek la li rek la motax muni motax muni te gëm dogalam te gëm dogalam ya ne gëm sunu diine werna <laughs> motax wax kat bi motax wax kat bi bàyyiwul de. bàyyiwul de. ca beneen bunt. ca beneen bunt. mu ngi ñaaxaar mu ñu nangu ngir ñu nangu. dogalu yàlla yi dogalu ñu féex ngir ñu rabbil xalqi ci dogalam. li yàlla def ci mindeefam loolu moo waram moo war am moo war am ku xamoon ëtt bii. ku xamoon ëtt bii. mag ñi ko dëkke woon mag ñi ko dëkke woon. ca buntu ca buntu dëkk géej ga. ca géej ga. du bay sàmbañan. du bay sàmbañan. maam ay bata ñoom. fii. bay taalagus fii sama sama baay bii fii. sama baay bii fii Baye Ousseynou. alaaji yaat fii yaat fii. maam saa baxaw fii maam fii. alaaji baaba ñang fii alaaji baaba ñang fii. Baye Mor Diop fii Baye Mor fii. Baye Ndiaga Fall fii fii. Baye Iba Faye fii Baye Iba fii. soo Baye Ousmane bëgg fii saa Baye Ousmane bëgg fii. mag ñooña ak seen may ya ak seen may yu rëy ya. seen yiw ya seen macha allah macha allah.

yàlla nañu xippee aljanna. yàlla nañu xippee aljanna. ana bàyyaat ana ci wàllu social ci wàllu social. fii lay lal basangam lay lal basangam. lu ma bokk lu ma am bokk. tàggat ci njabootam tàggat ñu dem. tey ñu dem. ëtt baa ngi wéet. ëtt baa ngi nii wéet. ñëpp xam nañ. ñëpp xam nañ ni. ëtt bi na ëtt bi wéet na. ngir ñu mën a dem nag. ngir ñu mën a dem nag. faw a jeexatu mag ña. ñu gëstu ko jël suñu tànk teg ko ca jeexatu mag. am kilifa am kilifa. dogal ba jiitu na. dogal ba jiitu na. cib jaamam cib jaamam. mu am lu jëkk mu am. dogal ba jiitu na ci jaamam mu am atem ba kenn manu ko ka mu am lii lépp yàlla lii lépp waa koon waa kon lu nu war a yóbbu lan moo nu war a yóbbu war noo këf war noo këf ba sunuy valeur ñu nar ka ñàkk addunaa tax ad nee na de jaru nañ muñ te jël mbir yi jébbal yàlla kon dunu juum tey bañ meeral di tiit ki def li fi am kon gaañi imaam imaam man huwa al man huwa al ki joxe ndigal kii joxe ndigal yi kan la. kii joxe ndigal yi kan la. ki ñuy jox ndigal kan la. ki ñuy jox ndigal kan la. ndigal li lan la. ndigal li lan la. du ñett ngoog. sang bi neen du ñett ngoog. kii joxe ndigal kan la. kii joxe ndigal kan la. ki ñuy jox ndigal kan la. ki ñuy jox ndigal kan la. ndigal li lan. ndigal li lan la. boo maîtriser wul lii. boo maîtriser wul lii. doo dem doo dem. kiy joxe ndigal. kiy joxe ndigal. mooy Allah. te kenn du ko jiitu. te kenn du ko jiitu. kenn du ko jiitu. kenn du ko jiitu. Allah. Allah. ñu ngi koy jàng rek. ñu ngi koy jàng rek. di ko wax di ko wax rek. waaye buñ ko déggoon. waaye buñ ko déggoon. jubóog sunu bopp. jubóog sunu bopp. Allah. Allah. laa ilaha. laa huwa. kenn du moom. kenn du moom. dàq na yàlla yëpp. dàq na yàlla yëpp. sampa boppam sampa boppam. du ñun de. du ñun de. te moom du ñun. te moom du ñun. ñun du nu moom. nanu tuub toroxlu ci moom bañ a beew du yella ci moom moom du kenn te kenn du moom rabbana mooy jabaaru moom Hmm. laa ilaaha illaa laa ilaaha illaa huwa. ay waay. sa bopp. waxal ak sa bopp. Hmm. mooy jabbaaru. Hmm. moo di azim. nanu tuub. toroxlu ci moom. bañ a du yella ci moom. moom du kenn. te kenn du moom mooy jabaar mooy jamaasi kii leen di wax sang bi ne kii leen di wax yow mi may déglu mooy xayyu mooy dund kiy dund te du dee bépp dund bépp dund boo xam ne boo xam ne la ko jiitu la ko jiitu woon dee la dee la mooy amagoo mooy amagoo woon googu dund googu dund la tudd mooy da wàññeeku mooy matuloo bépp dund bépp dund boo xam ni boo xam bi nga dundee bi nga dundee ci dee nga jëm naaxis nga matul matul

di ragal di ragal di jàq di jàq googu dund googu dund dund gu manqué dund gu manqué la waaye yàlla moom waaye yàlla moom dundam dundam laa bidaaya laa bidaaya wala nihaaya wala nihaaya amul wawal xadimun maa lahol bidaaya wazul baqaayi maa lahol nihaaya waaw yàlla moom. yàlla moom. amul fu mu tàmbalee amul fu mu tàmbalee. amul fu mu yem. ak dundam ak dundam. taxawul. taxawul ni sunu dund taxawee ni nun ñun ku ci lekkul dee ñun ku ci lekkul dee. ku naanul dee. ku naanul dee. ku netewul ku ku nelawul manqué. bu jant bi tàngee bi tàngee. ba tar ba tar. amoo foo seerloo ci dee nga jëm ci dee nga jëm. bu sedd bi taree bu sedd bi taree. ci dee nga jëm nga jëm. waaye yàlla moom waaye yàlla moom. soxlawul lekk soxlawul lekk. soxlawul naan soxlawul naan. ndax moom yut imu. ndax moom yut imu. wala yut yut amu. kii ma leen di wax. ki ma leen di wax. di borom dund gi di borom dund gi. xaalixu zamaan. xaalixu zamaan. kulli. kulli. moo bind jamono yëpp moo bind jamono yëpp. wal makaan. wal makaan. place yëpp moo ko bind place yëpp moo ko bind. ba pare bindee mbindeef yëpp ba pare bind mbindeef yëpp. soxlawul nag. soxlawul nag ci mbindeefam dara dara. nan ko seet nan ko seet yàlla soxlawul yàlla soxlawul ci ay mbindeefam ci ay mbindeefam dara dara dara dara xam nga lu tax xam nga lu tax wa huwa alghani wa huwa alghaniyu alquran yéem alquran yéem yaa ayuha nnaas yaa ayuha nnaas antumul fuqara antumul fuqara إلى الله إلى الله والله والله هو الغني هو الغني الحميد الحميد إن يشاء إن يشاء يذهبكم وياتي وياتي بخلق جديد بخلق جديد وما ذلك وما ذلك على الله بعزيز تموي دك تموي دك تموي دك منين تك سانغبي نيغي نيو تي كارغي limay wax jeure deglu neena limay wax mo ju ak jeure deglu ak jeure ak jeure deglu ci iman te soxla nañu ko nak wallaay dañ ko soxla. wallaay soxla naa ko. sóor naa ci ñi may seetaan nee na sóor naa ci ñi may seetaan de. ndax dana wër àdduna. ndax dina wër àddina bu soobee yàlla. te ñëpp a feebar. te ñëpp a feebar fi mu ne. te médicament baa ngi te baa ngi nii. dinaa leen ko wax léegi. dinaa leen wax léegi médicament bi. yàlla nee yàlla nee yéen ñëpp. yéen ñëpp amu dara amu leen dara. ay pauvre ay ngeen. man rek ma am man ma am man yàlla. seetal rek. seetal. man rek ma am. man rek ma am. te nag bu ma neexee. bu ma neexee saa su ne. saa su ne ma jëlee leen fi ma jëlee leen fi indi ñeneen. boobaak léegi. boobaak léegi ci loolu rek la ci loolu la ne. ana sunu maam ya ana sunu maam ya dem nañu dem nañu. ñu ngi nii ñun ñu ngi nii. dem. kii mooy xayyu kii mooy xayyu